njabootam lee ñu fa def muy Masaalikul Jinaan ndamal képp kuy jullit la lislaam bi yëpp àndandoo rafet lu ko waaye itam ñaanal yàlla ña ko fa def am na ñoo xam ni bu ñu yoroon milliards yu toll noonu daañu ko organiser ay ay daa ñu tabax ay hôtel ñu di fa mooy yàlla waaye alal ju noonu ngir lan néegu yàlla jëm ca kanam lii dey ku ko dégg sa xol war cee dëgg ñaanal yàlla ña ko fa def yal na yàlla barkeel leen masaalikul jinaan ndamu képp kuy jullit ñaan yàlla réew mi muurloo ko